dal leen ak jàmm ay waxtoo ci des Ousmane Sonko war a jàkkaarloog juge bi war a indi ay leeral ci coowal Sweet Beauté digganteem ak Adji Sarr Walf Quotidien convocation jiital Pastef tax na tey waa coalition Yewwi Askan Wi jóg nañoo taxaw ngir taxaw Ousmane Sonko Walf Quotidien ju xibaar ne ci yor-yoru àllarba tey ji ñoom waa Yewwi Askan Wi dañ ci amal jano ak taskatu xibaar yi ngir gindi askan wi ci lu bare bari ci bile dossier Ousmane Sonko jóg nañoo taxaw ngir wàttu kaaraange askan wi ak seen tey bari na fooy teg sa tànk ci Ndakaaru boo gëstoo gis tàkk der bu taxaw même waa sapeur pompier des ci biir yéene kaay bi di Les mi dakkal tournéem ga mu doon amal ca bitim réew ngir dellu ci saasi ci réew mi Déthié Fall ne lépp ngir taxaw Ousmane Sonko am keneen ku jógoon ne taxawaayam ci wetu Ousmane Sonko di procureur ga di Aliou mi fi jiite woon CREI sursaane ci altine gi ñu weesu la Ousmane Sonko jot convocation ëllëg ak ci alxamis gi ñu koy xaar ca bu mi di jotee yéene kaay bi ne ci fukki avocat ñaar ñoo ko fas yéene déglu toog di xaar waaye police ak gendarmerie taxaw nañu ngir saytu kaaraange askan wi ak seen moomeel alerte quotidien Ousmane Sonko bu mu jotee convocation ba léegi waxul waaye tey ay jege ñaaleem ci coalition Yewwi Askan Wi nar nañoo wax ak askan wi yéen kaabi di journal Le di ñu xibaar ne ay junni junni patriote taxaw nañu tembe ngir gunge Ousmane Sonko ca tribunal la firndeel bokk na ci bépp leaderu Pastef ak foo mun a ne ci biir réew mi ñoom njiital Pastef procureur Aliou Ndao ci biir yéenekaay bi ne benn crime moo am ci Sénégal mooy saay boo doone opposant ci mim réew faw ñu fexe la fitnaal la jéem laa yóbbu ndungu siin procureur Aliou Ndao ne bi la doxalin dafee war a dàkk yéenekaay bi l'exclusif ne ñëppati ci waxtu wi le jëm ci convocation Ousmane Sonko yéenekaay bi ne lu ne mun cee tukkee moom njiitu réew Macky Sall tukkeeti na newul ci réew mi tey ndajeb conseil des ministres amul dàq nañ ko ba jëmi jamono Maysa Babou a jamal candidature Ousmane Sonko ci élection présidentielle la dossier di mujjee moom Ousmane ndax mun na ca am su mandat de dépôt am déet waaye professeur Babacar Niang dàq na ko ne su mandat de dépôt munta am donte sax Ousmane Sonko mu ngi ba tey ci sous contrôle judiciaire yéenekaay bi gis ne trouble à l'ordre public ne bu dee réew mi dafa yëngu du baax ci Ousmane Sonko te du baax ci njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay di la témoin xëy di ñu fàttali ne lu bari xew na ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr gannaaw bu mu tàmbalee ñetti fan ci weeru février deuxième saison bi yéen kaabi di li quotidien déet li xewoon ci weeru mars 2021 warta am ne Ousmane Sonko war naa dem wuy ji ci lu amul a woolu ci yoon ay kàddoom ci sud quotidien député Abbas Fall bu Pastef xam le ne dossier sud beauté bi le dossier bu vide la dara amu ci ne complot politique la ngir bëgg a sànk Ousmane Sonko yéen kaabi di bés bi le jour xëy waxtaan ak Alioune Tine mi gis ne coal troisième mandat warta sànk réew mi ba tax na alintin Tine ngi cay dox tànk jàmm ci waxtu wi le yéen kaabi di direct news dox wutali assemblée nationale ak dogal bi nguur gi jël ci woto député yi ne bi le quatorzième législature député yi duñu leen jox woto waaye ndampaayu transport lañ leen di jox maanaam weer wu jot ñu jot lu toll ci 700 000 francs yéene cabinet bi le doxalin doon lu metti lool waa yeewi askan wi direct news di ñu fàttali ne te moo ne de Abass Fall moo fi waxoon ne Birame Souleye Diop na tànn diggante maire gamu doon ak député ndax warta am cumul de direct news bëgg a xam rupture ga waa yeewi askan wi waxoon ana kañ lay am waaye li am ci coowal ñeen fukki milliards ak juróom jëm ci njëndum gànnaay jëm ci ministère gi yor wàllu environnement Mamadou Lamine Diallo leeral ci Dakar ne waa eaux et forêts soxlawuñu benn yoon lim bu takkoo noonu ci wàllu ngànnaay yi yéenekaay bi di Le Soleil di ñu xibaar ne chrétiens yi ci ndakaaru soxla nañu ñetteelu armeel démb lañ ko xamle ci feetu Toussaint di pëccëg gu ñu jagleel ñu sell te jot nañ caa ñaanal woy dawlu yi yéenekaay bi ne lu aju ci ñetteelu cimetière fii ci ndakaaru maire bu Dakar Barthélemy Dias ne dañ ci béy seen waar libération xëy waar wu yaatu bi waa douane béy tegaat na loxo cocaïne foofe ca Kidira yéenekaay bi ne ci mafia gu yaatoo yaatu ndax lu ko dalee Bamako Conakry Freetown camion malien googule ak fa mu jaar yëpp bennoo nañu koy teg loxo loxo yéene cabinet douane bi tegaat na loxo lu ëpp téeméeri kilogramme yamba foofee ca fu ñuñ Walf Quotidien xëy di ñu tàgge ndem si yàlla saalif Diallo doonoon taskatu xibaar te doon yëngu ci wàllu tàggat yaram doonoon ku xereñoon lool ci wàllu wi tax presse bu Sénégal xëy di ko delloo njukkal bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Thiam mi jiite ANPS mi xam le ne ndem si yàlla Salif Diallo béy na waaru yaatu ci presse bi rawatina ci tàggat yaram Walf Quotidien tey Sénégal ak Afrique ñàkk nañu kàngam ci jamono joo xamante ne ñu ngi waajal coupe du monde te Salif Diallo fekkeetul Salif Diallo